sa ordinateur di tappe di kaj kaj yi kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga défendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es le dernier de la classe indignité caractérisée ayez le courage de dire la vérité au Sénégalais doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement internet yu sans limite ñu ngi leen di nuyu am mbégte di ànd a yéen tribune d' de soit comme ñu ko defee jàmm bu nekk di aborder les questions d' actualité dafa sakkan waaye tey dinañ jël ñaar ba ñett ba ñeent. ah ànd sunu gan ngeen xam ko euh, di euh, ministre euh, conseiller Zator Mbaye nekkit responsable bu mag ci parti bi di AFP bokk it ci mu mouvance présidentielle bi tey moom la dajal ngir apprécier ak moom li nga xamante ne moo aju ci actualité waaye duñ ko jeexal te waxuñu ci AFP ndax gis ngeen jamono yi ñu génn. coow lu bëri ana kan mooy uutu kii di Moustapha Niass am benn tour nag bu jib Euh, ñu bëri euh, ci ña fare ci boobee parti su ma ko mënee waxee noonu rawatina ñu nekkee ca Kaolack ne moom la ñu tànn di Aliou Sarr la ca am la ca amul ndax dinañ jëm ci congrès kan mooy uutu Moustapha Niass ndax ma xool na bu yàgg moom ni day bàyyi parti bi boole ko également ak coalition benn bokk yaakaar ndax ñu ngi jëm euh, ci 2024 boo xamante ne ba tey ñoom jàpp nañ ni kii seen bër du kenn ku dul le président Macky Sall amuñu plan A amuñu plan B waaye mu mel ni ñoom alliés yi bokkuñu kaddu ci wàll wi la ca am ak la ca amul boole ko comme ni ma ko junjee sànq yeneen ci ay actualité ba tey mu ngi fii Ousmane Sonko procès bi koy xaar le 16 laataa ñoo xam diggéen ak euh, Adji Sarr ndax daañu jëm ci procès bi am déet leneen it mu jëm ci Cour de comptes it ak it taxawaay bi ci procureur am euh, ngeen gis ko presse bi xëyee ko yeneen yi ko nuru également dinañ ko junj incha allah bu ñu ko euh, jot gi maye ci plateau beeg suñu gan ñu lay nuyu bu baax monsieur le ministre am mbégte bu baax dalal la ci plateau sans limite ci tribune d'actualité Ousmane di la fay di kontaan ci ñëw fii vraiment c'est la première fois que je viens dans Bien sûr. très joli studio. Ah, ah merci beaucoup franchement et puis avec une équipe très yow tam nga fën ah mais sa sa polo bu graw sa naaj n'est-ce pas. sa naaj bi dañuy dañuy dañuy dañuy épouser di nuyu internautes yi. Euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dinañu déglu ci waxtaan bi. oui euh, euh, d'abord wax naa ko sànq junj ko foofu laa bëggee ñu tàmbale cour de comptes liggéey bu mu def jébbal ko kilifa yi procureur taxaw na ca mais li jaaxal nit ñi mooy yoon bi mu jël yoonu dénk ko waa DIC ngir ay enquête préliminaire am ñu jàpp ni foo gën gaaw mooy ñu dem instruction loolu dafay semer doute ci nit ñi jàpp nii ba tey da nekk ci guddal jël rek bugg leen bi niy leer Sénégal loo def ñu ne lu tax defe defee ko woon nii. mel hmm. ni tey man la lu tax bi nga may invité solo chemise bu weex. le procureur c' est le maître des poursuites euh, ministre de la justice saisir na ko jox ko ci ay instructions moom mu jël jox enquêteurs yi. Hmm. attention dafa jox enquêteurs yi par la voie d'un soit transmis pour que ñoom ñu xool delloo ko pour que moom buñ ko delloo delloowee après mu soog a def un réquisitoire. jëppal ko le juge d'instruction ma fàttali la ne ci mbirum xalifa Ababacar Sall. ça a été le cas. ça a été le cas. Ouais. donc pourquoi les gens. non waru ko woon defee nii defee na ko nii objectif bi ce n'est plus ça parce que fan nii de xam lan leen doon wax. Hmm. dossier bi du mujj fenn. président jël ko jox ministre de la justice ñu ne noonu non naxaate la. kooku jël jox procureur ñu ne procureur yëngatuwul ba les gens nekk fii di def ay plainte yu nga xam ne c'est comme ay xale yu rendre ay copie examen amul sens amul njëriñ amul benn pertinence parce que ñoom kenn ci ñoom mënul a saisir euh, procureur ci affaire boobu parce que. plainte yu bëri. amul njëriñ parce que en fait. bu procureur mooy topp nit ñi ci yenn yi avec l' agent judiciaire de l' état nga xam ne bu fekkee ne état dafa am préjudice kooku mooy toppaate mais bu fekkoon dane <laughs> dërëm bu dugg ci état wala dara sénégalais 14 millions yëpp dem déposer plainte fu ñu jëm je pense que nous ne sommes pas dans une démocratie populaire. ndax nga bëgg a wax ne ku mel ne Alioune xamul loolu kon. mais xamu ko parce que peut-être bu ko xamoon. ku mel ne Alioune Tine naa réer loolu. mais amul sens loolu mais moom xam na ne dafa am ay procédures cette plainte là ban njëriñ lay am. ban njëriñ lay am ça n'a pas de sens parce que aujourd'hui li ñu doon wut mooy que la le procureur a saisi les enquêteurs. jox leen ay directive yooyu yu clair mais nañu ubbi suñu. peut-être ñoom li ñu bañ mooy li ñuy wax naan la le temps de la justice du temps wu keneen ak yooyu ñu bëgg xëy na maintenir la pression bañ ñu fàtte ko. mais pression parce que yaa amoon benn temps boo xam quand même xawoon na am. tuuti non jarul pression pour moi il faut laisser les gens travailler dans la sérénité parce que tamit lépp loo gis dafa ànd ak sérénité. Hmm. kiy liggéey justice dafa am ñaar yu mu soxla dafa soxla jot dafa soxla dal ak sérénité mooy sérénité rek. mais évoqué nga sànq kaaw Khalifa Sall boo xam ne quand ci diirum at suñ ko mënee waxee noonu yegg ba ci rabat d'arrêt ñu yàgg ci baro bi ne mosuñu gis dossier bu gaawee ni nu mel xëy na suñ koy opposé ak lii ñenn ñi dañuy am raison ci wàll wi. rapport yi kenn la génn yàggul rapport yi bi mu génn ak léegi yàggul di. ah ah deux trois mois à peu ci la toll même pas bi ko nit ñi déggee pro jaar na ci ministre de la justice rapidement mu dirigeante ko jox pro jox parquet parquet jël jox euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, les enquêteurs mais sant yàlla te déglu. pour les gens veulent que tey si tey lépp tool bi saxal ko tey mu ñor nga lekk ko tey je pense que loolu amul sens. Hmm. nañu déglu wóolu ñi nga xam ne ñoo yore suñu justice parce que je pense que ni ah am naa ci ñoom kóolute parce que ne li ñu war a dañ ko def c'est des Sénégalais comme nous ah waruñu mën a foog ne ñun ñoo leen gën a bëgg réew wala ñoo leen dàq jàng wala ñoo leen xam-xam bokk ma ci Sénégal li yaakaar amoo ci kersa ak gàcce ci ñuy njort ni am nañu. luuba suñu koppar ci jamono bu ñu doon xeex Covid. ak lu ñu yàgg a woote woo ci réew mi mbirum transparence ya ca aju. xam nga luubal moom ka kay wax mooy yoon yoon mooy wax parce que enquêteur bi bi bien sur def na auditam xool gis ne lii ni ñu ko doxalee du noonu. Hmm. moom mu bind ne loolu du noonu léegi nag la ca des yoon mooy àtte ndax enqueteur yi moo am dëgg. wala ndax ñi nga xam ne ñoo doon dogal ñoom ñoo am dëgg parce que je pense que li tax ñu leen di enquête mooy ku ci nekk dañu lay woo nga indi say élément ak say argument wax li nga xam ne mais justement njort boobu ñuy am mooy may ku mel ni Ousmane ko ci taxawaay yàgg wax ni réew mi ndóolut liy dëgg mooy nii dafa am ñuy tibb ci alalu réew mi di ko dundee xëy na moo indi sax coowal Prodac bi yeewu ci anam gi mu yeewoo ba indi xëy na procès diffamation la Mame Mbaye Niang wax renvoyé nañ ko ñun ci jëm la 16 yooyu yëpp dafay ñëwaat ci mbirum bonne gouvernance suñu sukkandikoo ci moo Ibrahima jaar na fi euh, ba léegi ñu ngi ci liste rouge bi en terme de corruption 43e position loolu yëpp dafa ñëwaat tamit ah ci li ñu leen waral. xam nga Sénégal ah. sous le magistère du président Macky Sall ñu benn leçon de bonne gouvernance dafa ñëw indi déclaration de patrimoine nag moo ko créé magistrat yi nekk cour des comptes moo renforcer seen i capacité renforcer seen i moyens pour que simplement mbir mi mën a leer. Hmm. est-ce que foog nga ne euh, bu neexuloon président rapport bi dina génn. parce que le rapport est destiné au président si, de la non le rapport est destiné président de la République. Oui. moom moo koy xool joxe ci suite donc c'est pour vous montrer à quel point il tient à la à la transparence et à la bonne gouvernance. Il y ko xam nga xam nga di bëgg xam fan la jaar xam nga par rapport à la Covid nga les gens sont en train d'oublier fan lañ jógee on est venu d'un moment extrêmement difficile man mii dama bokkoon ci ñenn ñi nga xam ne ci commune bi bi dund yi ñëwee man gis naa nit ñi ni ñu ko doon jëlee te commune bi ma dëkk xëy na ñu bëri jàpp nañ ne am na ñoo xam ne soxlawuñ ko. Mermoz Sacré-Cœur quand même. mais Barthélémy Diaz amoon na ci taxawaay. Ah, mais mais mais c'est pour vous dire que ni les gens venaient di jël dund yooyu yóbbu ko seen kër dëgg la nag ceeb diwlin suukar ak yooyu dafay rees. Hmm. mais nit ñi am na fu mu leen féete bu ko kenn fàtte le Sénégal a été résilient le Sénégal ne demul euh, récession budgétaire bu ñu fàtte loolu. suñu suñu suñu taux de croissance dafa positif loolu yëpp c'est parce que simplement am na ay instruments ay leviers yu ñu activer pour mën a dànkaafu jàngoro ji ak li nga xam ne nii mooy conséquences yi mu mën a indi. ci oui ba tey maa ngi ci bon gouvernance yi wax naa ko ma ne la est-ce que du loolu mooy may fit ak taxawaay Ousmane Sonko ci li mu yàgg rotal jëm ci yenn ba pit yi mooy li ko yóbbu ca kanamu yoon. Mame bay Niang di ko topp mbirum diffamation non yoon moom ku waxal nit lu amul sañ nañ laa yóbbu yoon tribunal bu bés bu nekk nit ñaa nga fay dem pour diffamation parce que man tey bu mën a tuumalee war naa mën indi preuve li mën a tuumaal xam nga tuumaal yomb na. Hmm. tuuma yomb na diw yaa def lii mais ana preuve yi indil preuve sa c'est très simple man loolu du ma ci sori. parce hmm. que mi ngi ci yoon. ah doo ci sori te. non du ma ci yoon faagaagal ko xañ ka la. non non vingt 2024 ci ngeen bëgg a jafandiku. xam nga kuy jooy yaa xam la ngay jooy lu mu doon. Hmm. parce que tey euh, buñ la convoqué rek nga ni jeex na tëj nañ ma xëy na am na loo def wala am na loo tiital sa bopp ndax yoon yoonu ñëpp la. Hmm. sañ ngaa waxu jam jubali ca yoon ñu déglu la nga ñibbi sa kër wala problème mais dañ la ne ñëwal nga wax ñu yow li nga wax ana preuve indi ko. c'est pas plus compliqué mais comme mi ngi ci yoon man vraiment du ma ci bëgg xuus. Hmm. li ma bëgg wax daal mooy la classe politique man ci laa bokk. majorité ci la bokk opposition ci la bokk war nañu assainir le débat politique. mais est-ce que loolu weesul parce que tey nga baal ma gatsa gatsa la ak réponse su premier ministre Barki Dembo Ndiaye mooy ku leen provoqué na ngeen ko ko delloo état dina gérer la ci des mooy confrontation bi fi mu ne nii ci ngeen jëmee réew. xam nga moo boobu dafa rëy la. ci olof saaga la imagineel nga toog suñu papa yi di déglu suñu xalif généraux yi di déglu ku mel ni suñu Muntaxa di dégg ku mel ni sëñ mbey Si mën ak ñeneen ak ñeneen cardinal bi ñëpp di déglu kilifa gu mag nga bëgg a réew mi nga nga wax loolu nit ñi ba am ñoo xam ne gis naa ñu def ko ci ay casquette di ko di ko di ko sol lu ñuy wax suñuy doom la leen jàngale ku ci sa doom laaj lan mooy lii papa c'est quoi ça quest que tu vas lui dire. la loi du talion. c'est ça la sa mooy lan ci wolof. mooy lu mu tekki. déet jàngal ñu man de ko jàppale mais xam nga ko. wolof nga su ma xamoon ni saaga la du ma ko wax. du ma ko répété mais sa gàtt rek ah, man ruus naa wax loolu sama kanamu doom. c'est rus naa ko wax sama kanamu doom. et pourtant ñi ko wax ak ñi ko jege nee nañ du saaga. war nañu mën a policer la le gis nga mën nga wax li nga bëgg a wax yépp te doo heurter nit ñi parce que am na loo xam ne yow doo ko wax sa kanamu doom doo ko wax sa kanamu sëriñ doo ko wax sa kanamu papa bu ko wax si kanamu àdduna et puis nous devons tous jàngal xale yi lu baax gis nga réew mi ñu ñëpp a ko bokk. Hmm. suñ ko taalee mu tàkk kenn du si mucc kenn du si mucc. mais dafa mel ci loolu lañ jëm ah. amul lu ko mën a téye ah mais discours yi de part et d'autre dégg nga premier ministre dama wax gis nga Pape Malick Ndour est bu est allé beaucoup plus loin 5000 jeunes la wax bu Ousmane wuyu jiwul dinañ ko fekk cité ba takk ko yóbbu ko ci kanamu justice. xam nga état yooyu yëpp aussi bu li mu war a def dana ko def ñun entité politique suñu rôle mooy fexe ba ñun suñu caq ñu téye ko xam nga nu koy téye. Hmm. ci am nañu bilan boo xam ne kenn duñ ci attaque président am na bilan boo xam ne amul ku ñu ci mën a attaqué ci réew mi ndax réew mi moom lim li fi def soo gëmmee sax boo ko làmbee di ko daj donc ñun majorité bi loolu mooy suñu mission fexe aussi ba li ñu naan fake news maanaam kàcc gu kàcc gi nga xam ne. Hmm. mooy aujourd'hui le programme fondamental d'une certaine opposition wax lu dul dëgg saaga xaste nappaate ñu ngi dëkk seen koñ yi cetera ñu dindi loolu ci xelu askan bi est-ce que ñun ñi nekk bennoo dañoo war a toog tëju suñu kër. ñeent juróomi nit téye ñu di ñu saaga di ñu xas mënul nekk. c'est pas normal. xool leen seen kër yi fu mu nekk teg leen fa ay nit bu leen kiiwee xàmme leen seen kër yi seen mais non. c'est une loolu. ci ban dëkk lañ nekk mais dégg nga ko. mais justement mais mais mais mais mais loolu. kenn rek ko fi wax crédit. gis gis nga Sénégal 1960 ba léegi nit ñaa ngi politique ay parti politique di fi am li xew nii lu bees tax la saagante bi xaste bi même en bi sax. c'est-à-dire yéenante lu bon les gens sont prêts à tout loolu lu bees la c'est une nouvelle forme de de faire de la politique et la politique elle noble parce que si bu dee pour rek defar gox bi defar si bi ñu bokk jarul xulu jarul saakante parce que gox bi ñun ñoo ko dëkkee da ngay tourner sa gauche di nga gis catholique nga tourner sa di gis murit jàkkaarloog tijaan jàkkaarloog laayam waaw. mais yéen balewuleen balewuleen seen buntu kër ah, yéen ñun waaw lan moo tëlim suñu bund. ah parce que gis nga fi ay responsable yu taxaw ne nañu ko rey. rey ko mooy suñu jàmm loolu dégg nga ko wax naa la. léegi je suis ah. contre oui ci seen responsable je suis contre toute forme de violence. gis nga violence ku koy prone danga ko xamul parce que bu juddoo doo ci mucc maa ngi déglu sama sëriñ bi yàlla na yàlla dolli leeram Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Al Amin mu ne Senghor ba muy dem. audience bi mu ko mujj may xam nga lu mu ko wax na ngeen fexe ba def lépp ba moytu guerre civile ndax guerre civile kat musiba la. mais ñu koy prédire ah. non. ku mel ne Alioune Tine wax na ko ñu ne ko pyromane nga. mais <laughs> nee na réew yu ne dem naa fa ngir fay. soo coow ya fay am. li may gis muy raam. fan mais mais le rôle c'était c'était c'était peut-être pas de le dire c'est peut de faire tout xam nga ñaari nit bu ñuy xeex hmm. da ngay booy ate da ngay xool ki tooñ nga ne ko yow yaa tooñ. parce que am na waxin boo xam ne mooy taalum réew par exemple Macky Sall est-ce que dégg ngeen ko fii ba mu dalee politique laa wax moom mu nekkee président de mu wax fii des propos vraiment exagérés. mais li muy jëf mooy waxam ah tëj ay opposition gis nga ay jeunes yoo xamante ni barki Dembo Ndiaye euh, moo xam dañ doon jaay carte wala ñuy waajal nit ñi ngeen ñu dem inscrire ñu téye leen retour de parquet tey la ñu wax. am na ñeneen ñu ñuy jàpp loolu aussi tamit. mais ñun loolu loolu loolu manifestation non autorisée. enfreindre nga la loi est-ce que dëkk tam warut am yoon tey émission bi dafa am noo koy tëralee du ko mu neex rek nga waax dugg jël micro wax c'est pas possible réew aussi dafa war a tuuti organisation parce que autrement ça inde de l'anarchie ñoom ñi bëgg jël réew mi sax suba ils auront des problèmes bu fekkente ne lii nii mi ngi continuer ku mu neex wax lu la neex so. pëcc takk der yi ca bunt ko ñoom Ousmane Sonko saa yu wuy ji loolu. mais loolu tamit parce que ñun ñi dëkk gox boobu daaw mais dund nañ lu metti est-ce que xalaat ngeen ñi nga xam ne toj nañ fa seeni oto lakk nañ fa seeni oto ñu ñàkk ko ku leen fay ñu toj seen kër ñi ñu gaañ kan moo fay est-ce que état warul maintenant di loo xamante ne ñoom xam nañ ko te ñun xamuñu ko bu ñu fàtte ne on am na peut-être lu ñuy dégg. Hmm. ci réseau sociaux yi ñun luñ dul dégg. parce que ñu ngi ils am na élément d'information yu ñu am yu leen may ne lii bu ko fayul ca njalbeen ga dafay ëpp doole mais man du ma du c'est pas à moi de dire à la police ou à la war a ñu ngi koy def donc afu nañ nit ñi dem nañ ci jàmm ñibbisi ci jàmm et c'est ça l'essentiel la fois dernière ba muy dem di wuy ji gendarmerie sax moo ko escorté alors qu'est-ce qu'on veut d'autre mais réew nag dafa war a am ordre lii kenn du ko fi defee fii zone de fii no man's land la non hmm. non Sicap Kër Gorgui depuis kañ lañ ko créé Kër Gorgui la tudd jamono Ablaye Wade nit ñi dañ ko doon njëkk a def parce que c'était une cité résidentielle aujourd'hui ça a tendance à. mais un ministre de la République dem fa aussi ne dañ ko coloniser loolu aussi est-ce du tooñ provocation la. <laughs> loolu tamit. non mais jàppee bu du provocation. non non non yéen aussi tamit euh, saa yu ñu tegee almet bi rek wala bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu sàndee almet bi. brin bi rek yéen ngeen. gaaw jël essence. état lu mu war a def damay dellu ci waxu premier ministre li war a def na ko def ñun li ñu war a def en tant que politique ñu nga ca ñoom tamit la ñuy def en tant que politique ñu nga ca parce que ñun dañu takk suñu cax ñoom ñu bugg ko bëf ñun sañ nañ ne suñu cax dañuy sangu sangu sanguwaat kenn du ko laal. wax bi ci Barthélémy Dias wax ne mu ngi ñaan président ñu waxtaan parce que li muy gis ak li muy yëg jëmut kër loo ànd ak moom la bu dee dëgg la. naka la ñuy waxtaanee ci lii nii. luy waxtaan bu dee lu dëggu la ci moom je salue ça parce que c'est facile de dire euh, président nañ waxtaan. Ah. xam nga su ma la waxee nañu waxtaan. ba pare ma taxaw taxaw fii nañu waxtaan ma lay saaga di la xas di la sànni xeer fu ñuy waxtaanee waxtaan kat ñaar a koy def nga wekk ma ma wekk la ñaata yoon la fi dialogue national am ñaata yoon la président woote nañ waxtaan nit la koo xam ne il passe tout son temps di waxtaan c'est un homme ouvert un homme de paix un de dialogue. waaye waxtaan dafa am lu ko lalal parce que tam dafa am principe yoo xam ne kenn du ko fule au pied kenn du ko loolu kenn du ko nangu ñoom ñooñu bu ñu nekkoon président de la République duñ ko nangu donc attention su may waxtaan ak yow. dama lay jox si lan yan ngay wax kon yan. non ay du ma wuyu ji bu ñu ma woowee non pour dama ne loolu mu wax. Hmm. dafa bëgg waxtaan. Hmm. nañu teg les conditions pour waxtaan mais waxtaan aussi dafa am lu muy laloo. moi je suis moi je suis moi preneur parce que man jàmm pour man lépp ci jàmm la xaj. toutes les guerres se terminent autour d'une table. waxtaan ba ci nañu teg procès Adji Sarr Sonko jaratul ñu ciy dem loolu it. non mais loolu xam nga mais loolu loolu xam ne président mi ngi dugal loxo ci justice tantôt ñu ne président dugalal sa loxo ci justice lan lañ bëgg non il faut que les gens sachent lan lañ bëgg président bul jege justice bu génne si sa loxo léegi justice a ngi daw pour lijjanti. telle affaire ñu ne ko président dugal sa loxo pour mu taxaw il faut nit ñi xam lan lañ bëgg. non bu dee waxtaan est-ce que forcément loolu lay junj mooy mu dugal loxo ci justice est-ce que forcément loolu. ah loolu xam nga des fois euh, dafa mel ni nga nekk ngay xeex ak nit rek nekk ci position faiblesse nee nañu cessez le feu da nga gis des fois entre étudiants ak policiers yi. des fois kataar ah, bi mel ah déggee waxu Barthélémy Dias. xam nga des fois asso bi dina métti métti boo xam ne. Hmm. da ngay gis étudiants yam ne nii. acca jeex na donc voilà. je crois que il faut que ñu xam lan la ñu bëgg est-ce que danu bëgg réew mu tegu ci yoon wala est-ce que dañu bëgg réew moo xam ne dañ koy xumtoo ay ay arrangement ay ay deal ci kaw non je crois que dafa am yoo xam ne Sénégal gii ñu nekk ni dañ ko dépassé bu dee waxtaan nag moi je suis preneur ah. que Barthélemy rencontre le président Macky Sall j'en serais heureux parce que c'est le maire de la ville quoi de plus normal. mais nag hmm. da ngay jox président cëram mu jox la sa cër. règle yi nga xam ne moom la république bi tëral nga appliqué ko. d'accord mais li dal seen kaw bëri na ah déjà wax naa rapport cour des comptes wax naa rapport euh, yenn sa diggante opposition rawatina waaye yeewi seen biir sax benn bokk yaakaar frustration yu bëri na euh, ci allié yi même ba ci candidature président Macky Sall bi ñuy bi ñuy agité dafa mel ñu bëri ànduñu ci loolu doyagut ci biir AFP également ay entité di génn ku ne bëgg a succéder. Euh, Euh, euh, ki nga xam mooy Moustapha Niass tur bi ñu ciy gën a dégg barki Dembo Ndiaye mooy Alioune Sarr ku ci jekk la ci mun koo uutu. xam nga nit doon nagul baayam te baayam deewul. xam ne waajal amul fen waajal. sa papa dee nga ne ko papa naka laa lay doonee mi ngi dund de nga ne ko laa lay doonee boo dee man mosuma ko dégg dama jàpp ne parti la ñu nekk parti dafa am ay règle parti bi Moussa Wagnès moo ko jiite le président yal na yàlla guddal fanam. moomul parti bi parti bi dafa am ñu ko seq. justement mu am ay banqaas banqaas bu nekk dafa am organisation organisation boobu moo tax ba Alioune Sarr moomu nekk jiite cadre yi. jiite cadre yooyu moo tax président Moustapha Niass proposé ko président Macky Sall mu tam ko def ko ministre gouvernement est-ce que daf mu est-ce que daf ko gën a yell Bouna Seck est-ce que daf ko gën a yell Malick Diop est-ce que daf ko gën a yell ku mel ni Mbaye Dione wala man mii wala keneen ak keneen yàlla mooy fal waaye lépp loo gis yàlla joxegul kenn ci loxo. Hmm. day am ci lu muy jaarale. c'est pas parce que nekk nga ci gouvernement pendant dix ans kooku li la war xam nga la moo la war. Hmm. delloo parti bi njukkal. ah oui. oui ci gën koo mën a servir. dix ans. mais delloo parti bi njukkal ci gën koo mën a servir. xam nga moo tax xëy na muy laaj. xam nga pour servir présidence su AFP. xam nga xam nga présidence su AFP du ci mbedd mi lan la koy joxe. congrès moo la koy jox. mais xam nga ni rapport de force loolu la. non rapport de force est ce que yow doo ko jàngal est ce que mën naa am rapport de force la politique yëngu la non jiite la amul fenn kaay jiite moo gën a wóor loolu la tey maa lay jiite par force amul fenn. mais ñi wax loolu la ñu wax. dañ ko ne kaay moom moo ñu doy. xam nga moom ba léegi waxagul ah. dinaa la wax soo demee fu mel ni Saint-Louis hmm. nga ni Saint-Louis daje na nee nañ tabb nañ ma kan te yow responsable départemental ba fekkew responsable des femmes ba yëgul responsable des jeunes yëgul est ka bànqaasu parti bi kenn yëgu ci yow dem nga toog ci benn village boo xam ne moom sax demul faf ndax boobu ba léegi kenn déggagu ko moom. kenn déggagu ko justement. voilà loolu nga kon kaaw li ñu gisoon ca ca ca kaw la amul benn responsable bu. kan la kan gis ngeen ci responsable. responsable parti bi yéen yow xam nga leen <laughs> yow xam nga leen man mii ñëw fii barke salaatul faatee bu fekkante ne parti bi tànn na ko bu ma ñëwee ma la parti bi moom la tànn <laughs> te te aw ma ci kersa nag su boobaa parce que suñu nawlee la yéen su ko bëggee yéene naa ko ko kan la koy xëccool moo kan la koy xëccool kan mais nag. peut-être na ñeneen ñoo waxul ay Pape Sagna tey ñu ngi ci. gouvernement bi mais mais mais euh, mais xam nga bu fekkente ne dañ la si gouvernement nga nourrir benn frustration. non moom moom dafa am benn responsabilité Alioune c'est moi j'ai pas part problème personnel ak moom ouais, ouais. mais démarche bi je ne l'épouse parce que pour man c'est une démarche dégarée dañu réer hmm. parce que amul benn parti tey bu mën a gañee élection présidentielle APR bii bu demoon moom kese élection du gagner hmm. amul benn parti bu mën a gagner moo tax aujourd'hui tu as les coalitions rawatina un parti fragmenté parti boo xam ne ñi jaar ni ñi jaar nañ ni tey par extraordinaire bu ko Moussa Niass waxoon ne ko kaay jëlal parti bi je peux vous jurer que ni di nga am am ñu bëri ñoo xam ne dinañ bàyyi. ah oui barki salaatul fatiha parce que man je parle à beaucoup woon na foo xam ne war na mën a peut-être dajale ñëpp parce que àdduna bi gis nga nit ku ñaane sa ndono sa deewin ñaaw Moussa Niass ëpp na fukki at président mu naan ñu organisez-vous tey parti bi ay ndaw a ko yor. moom mu ngi si gouvernement. suñ communication Malick Diop a ko yor mi ngi mi ngi assemblée nationale. man mi maa ngi si cabinet président et cetera et cetera donc ñi sampoon parti bi ñu ci bëri ñu àndoon ak président Moustapha Niasse presque yoretuñu dara ci parti bi ça veut dire que c'est un c'est renouvellement de génération mais progressif. renouvellement da nga koy def progressivement doucement mais tey ma donn la par force te yaa ngi toog ni jot ja dara ñu ne la noo deewal ma donn la fu mu am mais bu ko kilifa gi waxee aussi te ñu xam ni. Euh, Euh, dañu nekk euh, maanaam ci parti la ñu nekk nekkuñu ci kër bu ñuy doon nante doonanteeg yaaju parti bi moom moom mu ko donte moom moo ko sos. su waxee loolu ci taxawaay mun nañ ko comprendre. Alioune tamit moomul parti bi ñu ñun parce que ñun ñëpp jënd carte. mais sañ naa yëkkati kàddu. te attends njëkk ñu ci parti bi xam nga tamit ñun ñëpp xamante nañ ci parti bi yaa ah. xam nga euh, tey jii suba boo bokkoon ñun na nommé la def le ministre. Hmm. nga xam ne sénégalais yi faruñu fenn bu subaa gis ku ne Ousmane da ngay daal di am lex am biir daal di changé parce que Sénégal moo mel noonu mais c'est pas parce que tu as été ministre vraiment on a tous été contents du fait liggéey bi mu def ci gouvernement bi tout c'est c'est le parti qui en tire le le, le plus grand profit mais dama jàpp ne euh, candidat. Hmm. <laughs> day fekk d'abord nga jiite parti pour nga jiite parti xanaa dinañ renouveler cellule. mais kañ la loolu. mais su ngeen ko boolee contexte bi ñu nekk troisième candidature yooyu kañ la. yéen kañ ngeen xam nga la fi ñuy waxee nii parti bi mu ngi commencé placer ay carte suñu placer carte dañuy installer suñu cellule bu ñu installé ay cellule renouveler commune yi renouveler département yi mm. renouveler région yi ba ba congrès mm. renouveler mouvement des femmes mouvement des jeunes ak cadre yi mu jiite c'est ça un parti politique parce que tey attention yow journaliste AFP kenn la gëj invité ci organisation bu ay cadre am organisé kañ yàgg na voilà donc moom moo jiite cadre bi donc déjà léthargie bi am si parti bi man am naa ci responsabilité. mais hmm. moom tam am na ci responsabilité. mais li war mooy ñun ñëpp ñu toog nekk benn waxtaan ba nga xamante ne parti bi day gën a am doole te man li ma gis nii. Hmm. je vois beaucoup de camarades bouger pour cela qui pensaient que l'AFP était morte. ils viennent de comprendre que l'AFP quand même reste cette force qu'elle été par contre dañoo am discipline boo xam ne. Hmm. su ñu nekkee ci dara ñu ngi ci. mais lundi mardi. Hmm. yaa ngi table conseil ministre ministres. Hmm. de jeudi nga génn bëgg def opposition tey moom bu nekkoon candidat jàkkaarloog Macky Sall lan lay wax. jour wax. c'est la personne le plus mal placé du parti pour être candidat contre Macky parce que dégg nga ci gouvernement voilà tey bu AFP doon tànn candidat tey pour kan mooy jàkkaarloog président Macky Sall en deux mille vingt moom ce serait la personne la plus mal placée. parce que ci 12 ans Macky Sall moom am na ci fukk. waaw mais mën na wax ni mën naa def plus. que la mu doon def waaw mais ba tey responsable. il est comptable il est comptable mais il n'est pas il n'est pas il n'est pas le visionnaire. non je vais te dire lan lay wax ah, président Macky Sall bu demee débat par exemple ñu poser ko question sur la politique commerciale du gouvernement bi mu te woon pendant des années loolu lu muy wax. mu wax ci lim ci jot a def. lim ci jot a def wax yeneen orientation yoo xam ne xëy na levier yu muy taal. <laughs> <laughs> Ousmane Ousmane il faut être et conséquent gis nga boo nekkee ci attelage gouvernemental ci es responsable des bonus comme de malus. Oh. la fa baax da nga ci am. responsabilité la fa la fa la fa bon da nga ci am responsabilité. man tey su ma doon président Macky Sall ma am ku mel ni moom. Hmm. ku ma jàkkaar jàkkaarlool comme candidat damay fecc. <laughs> finalement kon mooy seen candidat. non l'AFP. le président Macky Sall l'AFP ma bamtuwaat ko AFP amugul candidat élection deux mille vingt quatre waxaguñ ci. fp amugul candidat deux mille vingt quatre waxaguñ ci ñu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñun. duñu ci on des actionnaires de cette coalition. on est d'accord mais seen seen seen mbokk yi ñoom leer na si seen boppam ah. suñu mbokk yan. APR. lan moo leer seen bopp. que ni ñoom seen candidat président Macky Sall. oui loolu c' est le choix de l' APR ñun AFP waxaguñ ci gis nga ba ñuy tànn ñun Macky Sall en 2014. Oui. on avait pris nos responsabilités bureau politique assumé ko instance yi assumé ko. ñu mm. woote presse wax leen ne leen li mooy décision parti bi bés bu jotee. Mm. dans les mêmes formes l'AFP se prononcera si kan mooy nekk candidat am en 2024. d' accord ci lan actualité bi au niveau de l'Assemblée nationale war na am lu ko méttee xam voilà. non xam nga président nag c'est un homme de grande expérience ki ko ki ko uutu ak moom ñu bëri jàpp nañ ni bokkuñu sax tempérance bokkuñu nit ñi kii et tout bëri am nañ ñu ko jooy ah ci assemblée. président jàpp ni waaw <laughs> maam waaw ah, mais bon nekk à la hauteur par rapport le début expérience bi dana ñëw ah expérience bi dana ñëw parce que président Niass may wax ne c'est pas la chaise qui fait l'homme c'est l'homme qui fait la chaise. chaise bi yow yaa koy mate yaa koy fees mais du chaise bi mooy ñëw ba tagu ci yow déedéet. Hmm. Euh, jàpp naa ne c' était un homme d' expérience c' est un homme d' le président Niass euh, son passage à l' assemblée aura marqué tout le monde hein, parce que ñëpp la marqué nag ñëpp ñi ko buggoon nag ñi ko bañoon nag ñëpp marqué na leen il a fait son temps. maintenant c'est notre grand frère Amadou Mame Diop qui est là-bas ñu ngi koy ñaanal mu réussir. parce que de sa réussite dépendra de la réussite du pays. Oui. ci lan la nekk Moustapha Niasse en dehors de li ko tabb. il est il est léegi naa manœuvre yi gën a mag ci biir coalition bi ci loxoom bi. <laughs> waaw mais il a l'expérience nag. oui l'expertise aujourd'hui mi ngi liggéey politique bu baax a baax mi ngi aussi jàppale président de la République ci. lañ ko sas mu war ko ci jàppale mi ngi koy doxal bu baax a baax ba pare mi ngi am wér mi ngi am sant yàlla bu baax euh, samedi rek euh, ñoo nekkoon vraiment voilà il est en pleine forme <laughs> macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax en tout cas merci beaucoup ci ni nga nangoo ànd ak ñun ci bii c'est un plaisir Ousmane di ñaan euh, vraiment di jégalu du ñàkk ne wax nañ lu ëpp noo xam ne neexul kenn. même ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax. di la invité aussi parce que samedi bi di ñëw. AFP dafay organiser waat li ñu naan les causeries du mois. ah weer ku jot. AFP dafa am benn thème bu muy génne. bi yoon jigéen ñi ñoo aye dañuy wax ci ay problématiques yu nga xam ne dafa lie avec la femme. dans le cadre de la gouvernance euh, de manière générale. Ouais. donc ce sera présidé par euh, le président Moustapha Niasse. di nga ko boo fa excès di nga ko gis. comme ça tu verras qu'il est en pleine forme. bien sûr comme yow Cissé nga sant moom Niasse la sant. <laughs> dinaa ko wax sama <laughs> bi ñu mujjee daje loolu la ma wax euh, xam naa ne dina la. intéressé <laughs> boobu moom xam naa bu dee loolu rek la. du ci am dara ndax bàyyee nii comme ni ko waxee nii. dinañ ma ci jiitu mais en tout ñu ngi koy nuyu bu baax président Moustapha Niasse maa ngi fàttali ko discours. Euh, à la nation bi mujj bi. c'est ça waaw ah, bu daaw bi on était ensemble. donc euh, muy nit ku am générosité. mu may fàttali suñu suñu suñu ancêtre yi. si si si si wax ma ci histoire bu. xam nga yàlla da ko may ci côté boobu. donc ñu koy nuyu bu baax. di leen nuyu également gërëm la ci ni nga nangoo ànd ak ñun ci jotaay bi gërëm ñu doon bàyyi xel internet yi wax ni beneen jamono incha allah daañu ñëwaat ci seen euh, tribune d'actualité comme ni ñu koy defee apprécier actualité fii ci sans limite. sa ordinateur di tappe di kaj kaj yi kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga défendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es le dernier de la classe indignité caractérisée ayez le courage de dire la vérité au Sénégalais doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat a ngir ragal gouvernement